alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. mbooloo mu daje. mbooloo mu daje. am nañ njiit bu leen jiite mooy. am nañ njiit lu leen jiite. ñaari mbooloo ci alquran yàlla tudd na juróom ñaari mbooloo ci alquran mel na mu ci nekk am na ñu am na luñ topp mel na mu ci nekk xam na luñ topp tudd na ne bakkanam la topp tudd na ne bakkanam la topp beray mbokkam ma lu mujjee perte lu mujjee kon topp bakkan mu jëntalam mooy perte kon topp bakkan mu jëntalam mooy perte yàlla nett ne ci alquran koo xam ne bànneex ab bakkanam la toppoon yàlla nett la la ci alquran koo xam ne bànneex ab bakkanam la topp yàlla mujj ko rëkki yàlla mujj ko rëkki ma mujj mel ni xaj ba mujj mel ni xaj. topp sa na mën na mag bakkan itam. topp sa na mën na mag bakkan it. mujj mel ni xaj rek lay gis jëriñ. mujj mel ni xaj loolu rek lay jëriñ. nett li na xam ne seen bànneexi bakkan lañ topp. nett li na xam ne seen bànneexi bakkan rek lañ topp. wax ne xay yu la dëkk. mu wax ne ñooñu. xayyu la ñuy dëkk. xuru safara woo xam ne safara sax daf koy muslu. di xur woo xam ne ci safara la nekk. safara ci boppam daf koy muslu ndax tàng. wax nañu topp Firawna. wax nañu topp Firawna. ne bañ ko toppee yóbbu nga leen safara. ne bañ ko toppee yóbbu nga leen safara. topp Firawna ak ku demee ni Firawna safara lay jëme nit. topp Firawna ak ku demee ni moom safara lay jëme nit ki. ñett ñu ne ñoo xam ne seen sangi àdduna lañ toppoon ba bañ a jaamu yàlla. ñett ñu ne ñoo xam ne seen sangi àdduna lañ toppoon ba bañ a jaamu yàlla. ñett ñu ne boo yàlla dañuy poñaante ku ne naa sa morom tuuti. ñu ne bu boo lëgee yëpp pencam yàlla dañuy poñaante ku nekk topp sa morom lii yaa ci dugaloon. ñett ñu ne ñu toppoon Iblis. Iblis moom dig nañ ko ne moom ñu ko topp ñëpp jaanam la ñuy dëkk. Iblis moom digal nañ ko ne moom ñu ko toppoon ñoom la jaanama la ñuy xam na it ñu topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xam na it ñu topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kooku yàlla na ne ko waxal ne. kooku yàlla wax na ko ne waxal ne. ku bëgg yàlla rek toppal ci man. ku bëgg yàlla toppal ci man. ndax ku topp ci moom rek yàlla bëgg la. ndax ku topp ci moom yàlla bëgg la. naka noonu ay donoom yu mat. naka noonu it ay donoom ya mat. sufiyanke yi ne sa sëriñ. sufiyanke yi ne sa sëriñ. du nga jàppee ci moom du nga déggee ci moom. doxut ki nga jàppee ci moom doxut it ki nga déggee ci moom. sa sëriñ mooy kër ne yaa ngoog sa borom ngoog. sa sëriñ mooy kan mooy ki nga xam ne nana la. yaa nguur sa borom a nguur ku la tegtal àddina war na la ku la tegtal àddina koo sa war na la ku la tegtal jëf sonal na la ku la tegtal jëf kooku sonal na la ku la tegtal yàlla nag ne la yaa ngoog sa borom a ngoog kooku ala laaya biir ku la tegtal yàlla nag ne la yaa ngoog sa borom a ngoog dëgg dëgg kooku la laaya biir ndax mooy maqaamam yàlla bëgg na la bëgg na la yow jaam bi wax na ci hadis ne mu ne wax na ci hadis ne sama jaam du dañ di ma sakkoo jegeñlu sama jaam du dañ di ma sakkoo jegeñlu ci sikarati naafila ci sikarati naafila ba ma sopp ko man yàlla ba ma sopp ko nag man yàlla saa yu ma ko saa yu ma ko soppee nag nekk di moom nekk di moom bu nekkee di yow rek nag nga matal bu nekkee di yow nag yow nga matal nag bakkan bi la doon lor dem na yàlla fa des bakkan bi la doon lor dem na yàlla rek a fi des nag kon yàlla moom lépp lu baax la yàlla moom lépp lu baax la ci beneen hadis mu ne moo ko soppee ሲበለን ሀዲስ ሙነ ብሎ ቆሶቴ ነክድ ኖፈም ውይደግ ደና ነክድ ኖፍ ይሙይጅጊ በዲሙ ይጅፈ ደና ነክድ በዲሙ ይጅፈ ለምዩ ይወኸ ደና ነክድ ለምዩ ይወኸ loxo ya muy jàppe. danaa nekk di loxo yi muy ngëbee. tànk ya muy doxee. danaa nekk di tànk ya muy doxee. ku yàlla nekk di sa nopp daa dégg bu baax a baax. xam ngeen ne ku yàlla nekk say nopp yow da nga dégg lool. yàlla nekk di sa bët daa gis lu nekk. ku yàlla nekk say bët yow da nga gis lu ne. kuy wut na wut loolu. kuy wut. koo maangoog wutal. te bul wax ne. tey bul wax ne. xam naa ne yàlla am nay wàllu kay. xam naa ne yàlla am nay wàllu kay. waaye ana waaye nag anañ. xanaa ña deewoon diw diw diw. xanaa ña deewoon diw de wala diw maa diw. ñooñu day buñ doon dund waaw. ñooñu day ñu ngi dund. waaw. loolu ku ko yàlla def sa xol rek tardé nga. loolu daal ku ko yàlla def sa xol yow tardé nga yow. yàlla wax na ne. bàyyi na yàlla wax na ne. moom mooy lu njëkk. moom mooy li njëkk. mooy li kon nag lu njëkk lu mujj bu fekkee lépp yàlla lu ci gën. kon nag lu njëkk ak lu mujj su fekkee lépp yàlla la ana lu ci gën. lu la lu lu feeñ ak lu la kon lu ci gën. kon yàlla moom demul fenn. kon tey dëgg dëgg yàlla moom demul fenn. jaam bi moo sàkk fu dem. jaam ci boppam moo sàkk fu mu dem. na dem ak toskareem waaye yàlla moom demul na jaam bi dem na kon ak toskareem yàlla moom demul fenn. xay bu la. xay bu ñaar la. xay bu bi nga dafa faddu. xay bu bu bi nga faddu. ak moom yow li faddu. li faddu. li faddu nag. mooy aljanna la ca nekk. mooy aljanna ak la ca nekk. loolu faddu nañu léegi. loolu faddu nañu léegi. waaye faddu gi xaybu gi nga xam ne. waaye xaybu gi nga xam ne. faddu. fadduwul yow yaa faddu. mooy péeb yàlla ba. moo di péeb ba. moom demul fenn. péeb yàlla boobu moom demul fenn. ki dem moo dem rek na dem nag. ki dem nag bàyyi ne moo dem waaye na dem jant bi jant la bu silmaxa silmaxa mu ko yëg jant bi moom jant la bu silmaxa silmaxa it moo koy yëg jant moom jant la rek lem neex na ku feebar ba ne dafa weex itam yaa feebar rek lem neex na ku feebar ba ne neexul yow yaa feebar rek waaye sax la topp suukar moom ni ki yaram di feebare nag. ni yaram di feebare. belu neex di naqadi ci moom. belu neex di naqadi ci moom. xolit noonu lay feebare. feebar ba la waroon neex ci moom du ca neex. a neex ci moom du ci neex. la naqadi mooy neex ci moom. la naqadi loolaay neex ci moom. waaye xol bu wér. bu wér. dara du neex si moom lu mooy bëgg yàlla tudd yàlla. dara du neex si moom lu mooy bëgg yàlla tudd yàlla rek. xol bu bëgg leneen nag. xol bu bëgg leneen nag. gis nañ ko feebar bay muut suuf suuf si ku ne xam na ne neexut. gis nañ ko feebar bay muut suuf suuf moom ku ne xam na ne neexut. feebar baa ko neexalal rek. feebar bi ko nekkee moo ko ko neexalal. doomi àddina yi itam. doomi àddina yi itam. li ñuy neexlu yëpp. li ñuy neexlu lépp. feeg neexlu wuñu yàlla ak la fa ci yàlla. feeg neexlu wuñu yàlla ak la ca sus. rek seen xol a feebar. rek seen xol a feebar. waaye feebari xol yi bari na lool. waaye feebari xol yi bari na lool. te docteur yaram yi dem docteur yaram yi moom bari nañ lool. te docteur yaram yi moom bari nañ lool. docteur yi xol yi nag moo néew. docteur yi xol yi nag. looloo néew. ndax docteur yi ci ñu feebar ñu bari. ndax docteur ci ñu feebar ñu bari. mu ne ñu feebar ñu bari. mu ne ñu feebar ñu bari. dañuy dem ci docteur di faju te ñu feebar fekk docteur ba leen gën a feebar. dañuy dem ca docteur bay faju ji te fekk docteur bi ci boppam moo leen gën a feebar. kon kañ la wér di am. kon nag ñooñu ñaar kañ la di am ci ñoom. ci feebar bu mën na jóg mu tëdd nga yaakaar mu faj la ci feebar ba mën na jóg mu tëdd nga ñëw sa jàngoro ne ko faj ma sa bëkkan kenn na la sa bëkkan keene mu dawali nit ne na ko xewil mu dawali nit ne na ko ko xewil fekk ko moo gën a foor yi ceen fuuf gën koo dëgër. gën koo dëgër seen. daaj yi ñu ko daaj. gën koo dëgër daaj yi ñu ko daaj. kañ la ko yeewi. kooku boo ko yaakaaree. kañ lañ lay yeewi. ku nekk ci njoñ mën nga tinki njoñal kenn. ku nekk ci njoñ. doo dindil kenn njoñam. te ñu bëri dañ leen def docteur. te ñu bëri kat. dañ leen def docteur. dañoo gën a feebar. ñu feebar ñu leen. te ñoo gën a feebar fuuf ñu leen feebar ñu leen dikkal ci feebar. ñu bëri ñu dikkal leen di leen jooyal ay ceen. ñu bëri ñu dikkal leen di leen jooyal ceen ñu leen yeewu. te gën a ceene fuuf. te ñooñu leen gën a bëri ceen. ñu bëri ñuy wut ñoom faj xiif fekk ñoo la gën a xiif. ñu ñëw ci ñoom di sakku ci ñu fayal leen xiif te fekk ñoo gën a xiif fuuf. ak ci ñoom ñu nandal la ñoo la gën a mar. nga ñëw ci ñii ñu nandal la fekk ñoo la gën a mar. sakku ci ñoom ñu xamal la fekk la gën a réer